du ñuy wax immigration suñu xel ci tukkib nit ñi lay dem waaye nag du ñoom rek ñoo ko yelloo ndaxte ci biir gàncax gi dafa am ay picc yuy tukki di jóge ci dëkk bi di dem ci yeneen ngir gën a mën a leeral phénomène boobu lan ma ko waral ñu ngi tàllal suñu micro sëriñ si di wóo ci turu El Hadji Pape Mor Diouf di sàmmkatu picc. picc yi tukki yi daal man daal lu mu si xam bëri nay façon bëri nay qualité mais man qualité yu ma xam ne en général tànk yi gudd la ñuy ak loos bu gudd mais seen bu ñuy voyager par groupe mën nañu muñ xiif ba keroog ñuy egg bu ñu lekkee tey maam du ñu lekk voyager rek pigeon yooyu ay pigeon voyager lañu danoo xam période bu ñu war a voyager ak période bu ñu war a taf voyager ñoom ils voyagent par la les saisons amour maanaam ñoom da saison moo xam ne ñoom suñuy mâle yi ak femelle suñuy def rapport am saison moo xam ne ñoom du ñuy voyager te ñoom daal xam nañu heure bu ñu war a bu tàngaay amee doo leen gis si kaw jaww ji ñoom ay côté février seddaay bi suñuy voyage parce que yàlla boo temps. tukki picc yooyu nag dafa am ay jàngat yu yu ñu ci mën a jëlee ñu sukkandikoo ci kàddu sëñ Lamine Diagne mi di sàmmkatu pigeon. jàngat yi gën bari na lool parce que picc bu nekk sabam am na picc boo xam ne bu sabee heure bi dañu xam ne bii nawet mi ngi ñëw la période boo xam ne ñu mën a na commencé dem di liggéey tàngaay wi ñëw mu ruub ay moment yàlla ji taw picc yi c'est-à-dire que day boo xam ne bu tàngee chaleur bi génne Sénégal température bi ñu ko mën a tenir daal moo tax ñuy génn voyager am moment boo xam ne dañuy ñëwaat dikkaat parce que len ñooy heure quoi déggoo ñëwee ak piccum Saalum picc yi Saalum Saalum lay jóge su ñu ba weeru koor jot ari nawet ñu ñëw. Sénégal te Séné Saloum ak Sénégal benn lañ waaye nag seen borom moo leen sàkkal xam-xam bu ñu ñëwee ci suñu dëkk yi di fi tàgg di fi nen ba ami doom àndaat ak ñoom dem. gën a yeesal jàngat ci tukkim picc yooyu la sàmmkat yi picc yi di ñaan gouvernement Sénégal ñu dimbali leen ci ndaxte ñu gën a mën a exploiter xam-xam yëpp bi mbir boobu ëmb. Adja Mariane Sall VOA Afrique Dakar.